Tay dañu am mbégte véritablement ñëw xol un peu la préparation bi nga xamanteni ni suñu service yi euh, engagé nañ ko ci ndigalu président de la république comme ni ngeen ko xamé dafa bokk ci projet bi nga xamné son excellence le président Bassirou Diomaye Faye daf ko mettre en avant moy Sénégal de nous fasciner. djublu ci setal suñu rew djublu ci changement de mentalité ak changement de comportement bo xamné dañ ci and ak askan wi ngir défar suñu dëkkuwaay fagaru fagu lepp lo xamné rek mën nañu andil ay jafé jafé motax journée bu am solo bobu nga xamné ci yagul dara dinañ ko lancer de manière officielle tay nak ma ñëwoon en tant que ministre avec mes services ñu préparé wu xol revue équipement yi ak lepp lo xamné rek soxla nañ ko and ci suñu jambar yi nga xamné ku ne xam na ci sen farlu ci sen deggu ngir sont sunu sunu donc Lolo, est content yi may jaajëfal Je fi fek fi ay doomu Sénégal yu am jom am ful bëgg li def te taxaw pour accompagner véritablement changement bi nga xam dañ ko bëgg askan moy askan wo day dey day environnement day day gorgorlu ci ciet ak ciatal ba nopi continuer nak def régulièrement donc looloo di leen encore une fois ci à taxawaay de lancer vraiment la mobilisation surtout au niveau des collectivités locales et des mouvements associatifs que nous ñëpp ñu euh, pour cette dynamique là dynamique qui nga changement dans notre environnement dans notre cadre de vie